njiitu réew mi di président Macky Sall ak gàngooram ak invité a ni ki démb nag ca jam ñaajo la ñu yendu doon wax ci lu jëm ci mbirum pétrole ak gaz bu Sénégal yéen a kaay gii di réew mi quotidien ak l'observateur ak enquête ak las ak Walfadjri ak Vox Populi mu ñuy xamal nañu nag njiitu réew mi di Macky Sall ab concertation la woote woon ni ki démb ngir nag ñu daal di toog waxtaan ngir ab loi boo xam ne dina jëm ci continu local ci lépp loo xamante ni ñeel na pétrole ak gaz bu Sénégal nan la ñu koy yore ak nan la ñu koy sàmmee yéen a kaay gi mu ñu xamal nañu Macky Sall ni ki démb sa jam ñaajo jubbanti na Abdoul Mbaye ak Mamadou Lamine Diallo ko Ousmane Sonko waaye tuddul seen tura moom Macky Sall la mu xam le ni ki démb nee na lu jëm ci wàllum pétrole ci boppam moo complexe bëri na nag ñoo xamante ni ñoo ngi ci réew mi suba ngoon guddeeg ba cëkk ñoo ngi wax ci pétrole ak gaz bu Sénégal te la nga xam ne moom lañ say wax maanaam xamuñu ci lenn waaye nag na leer ci bopp askanu Sénégal gi yëpp du ñu bàyyi kenn di yàq li nga xamante ni mooy moomeelu askan wi maanaam di ko saax-saaxee njëriñu ñu ma ngi réew mi quotidien waaye tamit ma ngi ci l'observateur journal bii di Walfadjri mu ñu xamal naan wax ji nañu ko wax ni démb njiitu mi di Macky Sall ma nga woon sa jam ñaajo waaye nag dafa mel ni la ko fa yóbbu woon mooy seetal rakk ji di Aliou Sall mi nga xam ne moom lañ tuumaal ci lu jëm ci mbirum looxóor ci pétrole ak gaz bu Sénégal journal bi mu ñu xamal naan ñu Macky Sall ragg na rakk ji ba mu set wecc yéen a kaay gi di l'observateur mu ñu xamal naan ñu am Ousmane Sonko suba am Ousmane Sonko ngoon am Ousmane Sonko guddi loole lépp Macky Sall moo ko waral maanaam mboolem bës boo Sonko am na ko ak maanaam mbooleem yéeg goo xamante ni Ousmane son mu ngi ko yéeg ci wàllum politique lépp Macky Sall la ndax son Sonko bu waxee maanaam tontu yi mel ni tulleeg màlle ñoom ñëpp ñooy jóg di attaqué Ousmane Sonko bi ci mujj nag mooy ci assemblée nationale maanaam Ousmane Sonko ba muy wax député yëpp génn te loolu lépp bokk na si lii may Ousmane Sonko doole ba tey ci biir yéen gii di réew mi quotidien ak l'observateur ak enquête mu ñu xam lan ñu élection locale yi tey jii si àllarba ji la ñuy xam caution bi ñaata la tribune ànd gësam nee ma ñoom mbaalo jecaam ñoom nag niki démb amaloon nañu am ndaje waaye lu ñu yëkkul Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la santé dañu ko fàtte ndax ñoom jàpp nañ ne daal yëfu yaa ma neex ak i caaxaan yu rëy maanaam moom la boo xam ne jox na ko mbirum gi ci réew mi drogue bi ñu jàppoon ci port autonome bu Dakar dafa am ñeneen ñoo xam ne ñoo jógoon maanaam daal di say sàcc ña nga xam ne nag ñoo defoon lu ni mel googule njombee googule looxóor teg nañ leen loxo tey jii la ñu leen di defeere yéen a kaay gii di source a mu ñu xamal naan ñu racine si mi nga xamante xamante ni moo jiite kër gii di IPRES moom nag jamono jii si yàq ko si la jëm te bu ko yàqee bu mu bett kenn ndax nag na nga xam ne moom lay doxalee ca kër ga dara jaaduwu si ay recrutement yoo xamante ni ci wàllum politique la ko teg te décembre bi nga xam ne moom la ñu dëgmal maanaam ñi nga xam ne ñoo retraité yi nar nañoo dund li nga xam ne mooy jaxnama yéen a kaay gii di réew mi ko dëjee mu ñu xam lan ñu état bu Sénégal jamono ji dafa banque maanaam état bi amul xaalis ndax nag bor yi nga xamante ni nguur gi amee na ko ci biir réew mi jéggi na dayoo état bu Sénégal ak Macky Sall ñoo ngi wër lu toll ci mille milliards Mamadou Lamine Diallo moo ko xamle ma ngi ci journal bii di Rewmi Quotidien yéenekaay gii di Vox Populi xëy nag daal ñuy yóbbu diiwaanu Touba mu ñu xamalaan ñu xalif général des Mourides jamono ji jël na ay dogal ci nag ay tere yoo xamante ni dañu koy tere Touba te lépp loo xamante ni tere nañ ko ku ko jëfewul nag danañu jël ay daan yu métte métte lal ko ci sa ndodd journal bi mu ñu xamalaan ñu fa nga xam ne fa la Serigne Abdou Lahad tegoon tànkam ay jamono fa la Serigne bi teg tànkam jamono ndax nag lépp loo xam ne jëm na ci wàllum xeesal wàllum mees wàllum tux wàllum jekk-jekk defar fa juma wala daara te benn ndigal dañu koy tere ak nag ñi nga xamante ne ay jigéen ñuy jaay seen bopp lañ lu jëm ci wàllum football ak làmb ak fecc ak yu si aju loole lépp sëriñ bi daf koy tere tey jii nag journal bi neena na sëriñ bi woonam mbooleem njabootug sëriñ Tuubaa gi ngir nag daal di waxtaan ak ñoom yéen a kaay gi de observateur dikkal ñu nag ci fecc mu metti mi nga xamante ni nag maanaam doon nañu ko wax fan yi ñu génn ci Tuubaa maanaam sabarke yéen a kaay gi nee na soxna maam Asta Mbàkke doomu sëriñ Mahmadan Mbàkke moom lañ doon maye maanaam mu doon amal ab noos moom ak borom këram borom këram ab transitaire la bi nee na Cheikh Bass Abdou moo nekkoon pare maanaam googale takk yéen a kaay gi nee na Serigne Amsatou moom Serigne Abdou Lahad la fa Serigne Bass Abdou Khadre yebuloon waaye nag farata ja ba mu jeexee soxna yii nga xam ne ay mbàkke-mbàkke laa ñoo fa organiser maanaam seenuk sabara ki nga xam ne nag mooy soxna Mame Faty Sidi moo sa gën a fës ñu woo bongo yi fecc seenu fecc ba yàlla jàmmal leen ki nga xam ne mooy Sall Ndiaye di ab géewal bu fa nekk ñëpp xammee ko moo filmer mbir mi dugal ko ci réseaux sociaux yi jamono ji nag ñu bari ci Touba mbir mi metti na leen